Eh, non non mais gratter da nga oh man la jëlee saa yuñ defee ci yow gros plan mais leneen la. non mais Aliou. moi moi j'aime mais Aliou regarde toi. mais Aliou regarde toi. regarde toi ah oui sañse nga. et de rachis. président jeune. jeune. Aliou jeune rajeunissement. <laughs> média bu jeune. voilà kañ ngeen di bàyyi Aliou mu ñëw ba leen tooñ. <laughs> mooy xaw man xaw ma jaaxal man man dañ may sëkkatoo rek. non yow waa plateau bi yëpp la fan. dañ laa am man moom. waaye ñu déglu ma la ñàkk chance. mooy xaw ma ndax affaire bi. mais damaa damaa jéem a bëgg Sonko <laughs> ah, hmm? bu ñu waxee rek ma ne leen yàlla na fi yàgg te wér. soo taxawoon voilà. parce que. mais même ñi ma waroon dindal ay yére jox ay yére ma sol sax fay nañ. Aliou. moom. Aliou soo bëggee soo bëggee soo ma wax soo non grand moom c'est même pas la peine yor ko. non non papikos. Aliou parce que man bu bu mel ni bu jomaay bi laa bëgg ah. <laughs> waaw. ah man de damay bëgg damay bëgg mais non mais man gars yi may kii mais t'en fais pas dañu may dañu may dañu rek man xaw ma lan la man de Sonko jaaxal na ma. soo bëggee Sonko la ñu ne la bul buruxlu. mais bu mais c'est même pas la waaw waaw waaw. waaye yow gis naa loolu kay. <laughs> man de kenn mësu ko am waaye problème moom mooy du président la. <laughs> mu leen loolu Sonko du président yi du président. waaw nuyoo góob ba léegi. keroog dama wax ak benn boy noonu. Pape Sarr micro bi moom mu ne ma waaye Sonko mooy yàlla mooy yonante rek dóor ci taabal ji quoi day booy booy di jaay dàll foofu noonu. non mais baax quoi mais. mais que nen la. duñ ko tey. naanu leen ay café tubaab wala seen beñe dugub boobu. wala yooyu. Sonko est sotti wuñ de guerre rek. wala lag de guerre wala yu demee mais mais yàlla mooy def loolu rek. mais loolu dara non billaay dama dama toog dugg sama oto di réfléchir. mbiru yàlla te booy bi moom nee na ma mais yow. grand c'est que nice grand nga quoi mais grand lu tax doo wax ci grand bi lu baax et puis grand yow nitu dëgg nga quoi ma ne ko mais booy c'est que am loo xam ne daf ma jaaxal yow nee nga ma nitu dëgg la ba pare nga ne du ma wax lu lu lu baax est-ce que mën nga ma wax benn détail boo xam ne xëy na dama ko wax tudd dëgg mu ne ma non c'est que grand yow ni ngay waxee ak buñ nga xoolee non dafa mel da nga bañ gaañ bi quoi mais grand est-ce que bañoo gaañ bi mais pourtant gaañ bi gaañ nice gars la quoi li gaañ bi dañu am yaakaar ci moom quoi <laughs> non xoolal ndeysaan quoi booy bi après. Ah, si parce que booy bi il est bien. mais xelam man xamuma lan la quoi. autant il me dit que nii man li may wax yëpp dëgg la autant nee na lu tax may wax wa xam nga comme je te jure après ça a fait réfléchir nag. c'est ça et j'avais envie vraiment jour ci sociologiquement ñu waxtaan ci sax xool effet bi quoi cas le cas. effet Sonko. waaw qu'est-ce qui se passe bi te booy bi non da ko bëgg nii rek mais xamul dara moom pour moom waa ji daal. daf daf leen war a dimbali quoi daf leen war a xett li génn leen ci seen i situation. mais est-ce yaakaar boobu mu demee noonu. yaakaar ko à ce point là moom kese mais am na ñu bëgg sàmm yàlla na yàlla sàmm kontaan naa. bon moom moom daf may quoi bi moom. quel garçon <laughs> dellusiwaat nga fii ah yaa ngi ci plateau. baal ko. pour qu'il comprenne man maa ko njëkk a nekk man maa ko njëkk a nekk tukulóor ah. man de lu mu guddi guddi pikir laay fanaan. man man loolu rek wax la lan si guddi guddi Pikine laay fanaan guddi guddi Allemagne. Cheikh Omar may jàmm yow wuyul Ndeye Aram nee na la nuyu. Faham ça mais je t'ai pas encore dit je l'ai même pas encore. je l'ai même oh là là. ay yàlla. émission bi kon kon bonsoir. émission bi ci biir émission bi. foog gars yi ko comprendre émission bi quand même le premier quart d'heure quand même nañ ko war a consacrer à à Aram quand même. parce que ah. le premier quart d'heure à Aram. le premier quart d'heure nañ ko consacrer à Aram wax ci Aram. waaw am na koo xam ne nag xaw ma lu mu tudd nii kooku noonu yónnee message ki eh, kii kooku. non ça non rek yaa ngi jàpp sa noir baax sa noir rafet na. aram aram borom kilifa mbir bi man borom parfum bi moom xamal ni kilifa nee daf lay mbaraan. mais yow ma ngay yàq. kilifa nee na kilifa nee na kilifa nee loo ko mënti defar xamal ni kilifa. compté wu la compté yéene wu la aram loolu dama bëgg yow borom parfum bi que que nga xam ko yónneel nag trente six mille litres de parfum ce serait exactement la même parce que yéene la ko waaw de toute façon man mii sax yéene wu ma man. waaw aram doy na sa bopp. moom cee sonn dégg nga ma ne il faut ñu beneen jigéen bi ko atte quoi <laughs> en tout daal. il faut plateau bi <laughs> amaat beneen jigéen. aram daal président xale. woykat xale musique xale. dëkkul xale. fii xale 44 ans. Euh, maa ngi lay fay topp <laughs> duñ ci génn mais c'est la première émission bu nar a am am vigile quoi parce que fii moom yi <laughs> fii xew yi fii xew wala émission bi <laughs> moom bañu si wàccal wàccal grand bi wala ah. grand wàccal booy bi. bañu si ah, gis nga. waaw ah. <laughs> Pa Moussa nuyoo na waaye tooj. di di la nuyu bu baax di nuyu gaayam vraiment Aliou nguuru Diomaye bi moom euh, jig na la quoi yow moom yaa ngi ciy yëg sa bopp bu baax a baax a baax. te le mandat mu ngi bomb. non non moom mu ngi bomb xam nga man la. kii laa de. kapoo nga kapoo nga kapoo nga te comme comme. Euh, bon voilà moo tax. mais boo Cheikh Omar day sonal boppam rek. booy bu ñu la naree sonal. parce que maa ko gën a taxaw. maa ko ëpp doole. maa ko gën a intelligent. <laughs> maa ko ëpp xam-xam. te yaa ma gën a rafet. Ah, maa maa ko njëkk a juggi. <laughs> gël gël ah, euh, te te <laughs> voilà. léegi daal booy bu ñu la naree naan da bañ Sonko yoo xam nga bëgg nga joomaay. bëgg nga Diomaye teel non non xam non moom daaw laa ko waxoon. waaw léegi yow ne Diomaye mooy nangu nañ ne Diomaye mooy Sonko. non Diomaye man comme que ki ngay waxal quoi. mais man bañu ma Sonko de attention mais man. man am na problème waaw nga bëgg laa wax. waaw waxuma da bañ Sonko da bëgg Diomaye. <laughs> kon kon mooy Sonko kon bëgg nga Sonko. point final yow bàyyi la foofu xoolal fi toll nii téye téye ko foofu ba 2024 bi jeex bàyyil ba 2024 bi jeex a commencé opposé wu wu ma. non opposé wu ma musuma a man ànduma la non honnêtement mais bi ma koy wax daaw la loolu. waaw xamul tax xamul tax ma am nga dëgg sax mais xamul tax ma kii woon ko billaay dogu man la je te jure tax ma ko man dafa am loo xam ne man amuma ko man par exemple man man man gaaw moom il faut ma jàng ko quoi yàlla dimbali ma ci man tekk bi man sama tekk dafa des. Hmm. te maanaam maanaam. Euh, non en fait Diomaye dafa dafa am tekk. waaw loolu dama ko ko wax quoi. Hmm. te te te te wax te foofu sax new naa ko man man bon dama sëriñ duma dara mais des fois da gis ni mu wóor ni kii nii mën a dem dafa am kiiwu wu kilifa. Hmm. da da da gis nga ko gis nga ko Touba. gis nga ko Touba. non. Paa Moussa bonsoir yow dañ la wax nga nuyoo nga. xool non non dama ko doon nuyu rek dama ko doon nuyu rek. mais moom boo kii mais maa ngi nuyu Cheikh Oumar Alpiki nuyu. Eh, di nuyu kilifa kilifa jamono kilifa bii ne moom temps yi dafa raar quoi. Baye Assane mu ne. ah. Baye Assane dégradé. waaw. Baye Assane xam nga lan laay xam nga lan laay ragal. tey eh, tey lay wotu. booy xam nga lan laay ragal. Eh. loola da daloon jamono ji lay fekk si couloir yi nga tëdd dog eh, eh, loolu loolu lay ragal mu <laughs> daf maa yërëm ma jamono jooju may va et vient na ñaata plateau douze mille waaw <laughs> ah, douze mille jógee États-Unis ñëw ay vitamine <laughs> nga la jëlal damaa loof madame Diop ñu koy nuyu bu baax léegi naa la mu lay jox prescription yi naan la. daf ma woo ma ne ko Boucounta mënu ma mais ba ma ci dóoree ba ma ci dóoree ba ya ca laa ne ñokket <laughs> ñu ngi lay nuyu bu baax saa ne vitamine yi day andi lex. ah mu ne ba bu ci jox Pa Ousmane ah ma ne ko nga dëgg daal am na am na lex ba pare ma di ko vitamine C. <laughs> Pa Ousmane mën naa am lex. Pa Ousmane daal ñu ngi lay liggéey toppatoo la yow bàyyi leen tooj. madame Diop vitamine C la jox affaire pour pour pour faire. Pa bu ko tontu. <laughs> kilifa nuyu naa la. nday axam ak moomin fay naa la eh, déggal te nuyu naa la yàlla léegi après Aliou yow garaawul quoi franchement garaawul non booy ko li ci suba suba suba incha allah laa war